Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.

waaw macha allah non maire bi mënul yomb quoi mënul yomb euh, fu mais fu ñu jaaroon dañuy jaaraat rek quoi allah si kattanu yàlla quoi ndox du bàyyi yoonam quoi waaw euh, ñun on la connaît macha allah euh, guerrier la nag quoi jàmbar la mais ñun gën a gën daal waaw plus fort amul fort fu ñu jaaroon dañuy jaaraat incha allah fokkati trois points andi ko fii quoi waaw andi coupe bi loolu rek lañ si lañ si wut quoi waaw ñoom ñu ne dañuy doon 4-0 ah man loolu la ah, mais 4-0 yi ñoom loolu ñu yàgg wax quoi. parce que ñu ne seen sëriñ dafa ne non bu leen joxee xaalis bi quoi xaar leen ba après final bi 4-0 yi bu duggul ngeen bu leen jox xaalis quoi mais sëriñ boo xamoon mu récupérer euh, xaalis bi 4 points euh, euh, Real du équipe bu ñu doon ay 4-0 du équipe ñu doon 4-0 parce que dañoo liggéey macha allah on a travaillé pour en arriver waaw dañu fàttali ñu daaw ñu ne la ko champion zonal ñoom dañuy fàttali boo joué champion waroon naa ko quoi. Euh, macha allah euh, supporters yi vraiment ñu ngi béy seen waar quoi surtout les femmes là waaw euh, c'est de vraies compétentes ay jàmbaar lañ quoi vraiment. apparemment euh, Ajax ak Girongor en même temps que kii Face, c'est seen supporters vraiment ay jàmbaar lañ quoi C'est est de vraies compétentes maa ma leen di vraiment maa leen di remercier quoi ñoom ñoo tax booy ñu ñafe quoi tey boo gisee booy ñafe si biir terrain ñoom la quoi. Sané Mamadou Lamine Sané capitaine Real fi ñu toll moom ci état d' esprit non violence affaire yooyu noonu waaw bañ a coow li jóg affaire yooyu. match moom préparé nañ ko si lu mu waree quoi. waaw instant moom li si des moom dugg ci ah, du yomb moom parce a yomb moom bu xanaa mu yomb seen côté mais ñu moom du yomb si parce que demi-finale fii waxoon nañu dañuy doo 4-0 après mooy loolu fu ma jaaraat fa laa jaaraat gajale sama gars yi moom xam naa ne bu ñu duggee si biir moom adas moom du ñu mën a téye waaw lu may lancé moom mooy ambiance bi quoi ñoom ñu neexal si kaw bu ñu neexalee si kaw moom ñun suuf nañ fa neex soobee yàlla quoi violence moom ñu bee ko. waaw salaamaaleykum gars yi maa leen di nuyu di leen gërëm leen sant. Euh, benn baas Dabo. bu Dabo. ñun ay céréales fair play lañ yàgg xam franchement parler yàgg nañ joué ay final mais francement fair play lañ koy def quoi waaw dañ siy dem si jàmm ñëw si jàmm ñu jël ndam bi quoi maa ngi gërëm entraîneur yi. di leen sant bu baax a baax seen liggéey baax na quoi franchement.

journal bi mo nekkone suñu objectif et je pense que je pense que fof lañu la ni donc euh, comme ni mala ko waxé état d'esprit bi baax donc donc euh, euh, moy li mala waxone rek euh en fait cette année on s'est on, on a décidé de remporter cette coupe là parce que loolu rek moo ñu desee ci coupe manam ci ASC bi donc mooy euh ñuy war a lijjante Euh, suba inshallah ci kaw euh, Real c'est vrai que doron nañu donc là mom nous on oublie ça donc euh, suba je dirais que revanche la du revanche parce que ñun mom luñu mom dal lañ koy dem jël inshallah ci kaw ci katam yalla donc assalamu alaykum ma ngi nuyu ñep nuyu assistance bi di nuyu sama joueurs yi di nuyu wa quartier bi di nuyu dirigeant yëpp. de leen sargalal euh, pour euh, suñu final buñu ñu di préparer di wax ni final bi concerne na wa koñ bi yëpp euh, ñëpp suñu événement la dañ koy préparer n'est-ce pas donc événement bi dafa am benen événement ci kawam bi nga xamné dañu am benen naxar bi nga xamné euh suñu élément bi nga xamné il fait partie des meilleurs joueurs yi nga xamné mom la ASC bi jotta am comme joueur n'est-ce pas ñi formé ko mu doon joueur bi nga xamné il est pétri de talent donc tout récemment mom moo la yalla wo ci wétom n'est-ce pas donc euh, ASC e donc on a tenu vraiment euh, pour rendre hommage n'est-ce pas à travers cette finale là donc finale bi moom lañ koy dédié dédicace finale moi je n'est-ce pas parce que euh, ci moment yi muy ça, sax dañ ci watan waxtaan dañ doon jokkoo ça c'est ne man ak joko dañ il était il se battait quoi pour mën a au moins les matchs des cadets parce que jotaloon am sens pour sept ans la jouer donc quand on parlait man mom euh, il faisait tout pour mënoon ñëw fekkee match yi. ja ak bëgg boom yalla ak dogalom yalla dafa décidé autrement ni mom euh, final bu ko boy di jouer da koy fekk mom mu nek Barça. donc tey ni nii dañ koy euh, ñaanal soufi sedd ci kawam té final bi dañ koy jouer à son nom donc moi, on tenait vraiment à le rendre hommage parce que vraiment c'est un enfant spécial du quartier un jeune vraiment pétri de talent très très très éduqué n'est-ce pas un exemple parfait pour toute génération n'est-ce pas, pour Khaled il veut avoir euh, quelque chose dans le foot, veut devenir quelque chose dans le foot. Donc, euh, c'était l'exemple parfait pour nous, nous avons profiter de l'expérience. Donc, euh, vraiment, on tenait vraiment, euh, finalement, préparer à son nom, n'est-ce pas, d'y rendre hommage, n'est-ce pas, de respecter la famille, de leur dire que dem na mais ñun ñu ngi donc ba léegi même groupe bi moo donc on tenait vraiment ce que ñu rendre hommage avec cette très belle photo n'est-ce pas geste bu mu def ci photo bi ça dafa wane nit ki mu doon n'est-ce pas une personne vraiment vraiment sympa donc boo ko c'est sa vie comme ça quoi ah, une personne vraiment exemplaire donc qui était tout pour moi donc à qui je partageais beaucoup de choses Mais étant enfant donc il regroupait toujours les gens autour de l'ASC quoi. supporter Ajax comme d'habitude rek ñoom xam nañ parce que sont ñoo sass. sas ku nekk am na bi nga ne dañ la koo dënk te supporter dañoo ne ñun ñu nekk ci suuf ñoom ñu nekkal ñu ci kaw dirigeant am dirigeant am donc ku nek koñ bi ku nek xamna fi nga fété maire yi ñu ci koñ bi di ñaanal ak paay kadee ñi ngi dem teena pour nañ jongante ak wa Real supporters yi ñi ci kaw di toj fofu n'est-ce pas ku nek xam li nga bëgg def mais supporters yi def seen mat ñu def sen mat di ñaan yalla yalla may ñu ndam bu sédd guuy ci kaw Real waaw donc par rapport ak euh, revanche mo fi dogon fi donc revanche amul suñu diggante ak Real message bu rafet la bon defena do dem lamb do dem ci lamb di wax lenen n'est-ce pas li jëm sa côté rek ngay wax donc euh, message bi rafet na mais tontu bi suba lay don donc bu dee dina am wala am ñoom xam nañ ko Real ñoom xam nañu bu baax xam nañu Ajax n'est-ce pas départemental gagné nañu mais taxul tamit ñu yàb ñu waaw ñun xamante nañu te gëm naa ni suba nañ ko jël seen loxo incha allah. tudd Cheikhouna Cissé man maay capitaine nu ASC Ajax te depuis daaw la tamit defe naa ñaari course yi wax nañu lépp ba léegi moral baa ngi moral baa ngi baax depuis début début kii semaine bi nag avec beaucoup de concentration gëm nañu suba bu ñu demee incha allah Real dinañ ko dóor. incha allah lu amoon demi-finale départementale bi dootu amaat dañ dem avec beaucoup de conviction dem concentré ki nga xamante ne moo ñu dooroon départemental demi-finale bi won ko ñu carrément ñoo ko gën a solo coupe bi. ba pare li ñu message bu ñu jox mooy si kaw la ñu nekkal ñu nekkal leen suuf mooy maanaam lépp lañ joxe si suuf ñoom joxe lépp si kaw. Génération FM. Generation FM, the best radio. FM.